faratay ca ngaay da koo def ñeent yéene moo ci jëkk mooy mu yéenee joox faratay ca ngaay la da cee teg nag li ñuy wax fawru gaaw te jublu ci sesale mooy bu xasee tàmbalee sangu bu mu tàmbalee ba noppi bàyyi ko di def leneen bañ koo sesale bu defee lee bàyyi ko nekk ci leneen ba mu yàgg rek bu ñëwee day tàmbaliwaat waaye la mu defoon yàqu na de moom sax bu ko yàlla bindee yéex ndegam dafa sësale rek ni mu def fekk la ca topp rek yéexaay ba du ci wàññi dara ñetteel bi mooy matale ragg gi mooy lépp luy feeñ ci deru yaram wi na fa ndox ak loxo àgg fépp day mat ci ndox ma àgg fa loxo ba itam bomb ko ci mboolem li feeñ ci yaram wi muy ñett di ko ñeenteel nag mooy xalil kawar fu kawar nekk rek ci yaram wi muy ci sikkim muy ci naq muy feneen ni ki bopp bi yépp dañ ko war a yëngal tasaare ko ba ndox ma dugg ba ca deru yaram wa booy sangu farata fu xaw a làqu ci sa yaram def ab ruq na nga saxe ba yóbbu fa sa loxo ak ndox toppatoo ko bu baax mel ne xóot xóotu ñaari bëtiwoom yi ak xóot xóotu poqtaan ak li ñuy wax teppaxu tulip yi saxe ak diggante yaari njakkikaay yi foo xam ne sa loxo dafa mënta àgg waaye mën nga am njàmpe mbaa lu ko nuru lu fa mën a àgg kon fabal loola su fekkee nag sa loxo mënu fa àgg amoo lu mel ne njàmpe mbaa lu ko nuru lu fa mën a àgg kon ci ni waxe moom mën ngaa woo ku la ko ragal nit ki bu dee ñaar ñuy sëy xam ne ku ne mën naa xool awray moroom ma ku ci ne lu mu mënta ragg ci yaramam mën naa woo moroomam mu ragal ko ko waaye wax ji gën a wóor mooy rek foo xam ne sa loxo mënu fa àgg amut lu mel ne njàmpe mbaalu ko nuru loo fa mën a àggale kon boo ci mënee xëpp ndox rek nga xëpp ca ndox soo ko mënul nag nga bàyyi ko noonu sa jaan wàcc na ndax loo tële rek kenn du la ko jéem a teg sullay cangaay mook farata yi ñoo tolloob lim ñeent la ba ci njëkk mooy booy tàmbalee sangu nga raxas say loxo ba fa ñu takk montar ñetti yoon na nga daa tàmbalee rek jàpp galaxndiku ci biir cangaay li sunna la saraxndiku ci biir cangaay li sunna la massa bën bën nob ba luqar ci ko sunna la ndax jëmmi nob bi li nga ci mën a jàpp moom moo ko sa dënn ak sa biir ñooy moo des ko war a raxas bu wér a wér dafa tàmbali ngënee li cangaay ba ci njëkk mooy bala ngaa tàmbalee sangu bu fekkee am na fu la sobe takkoon ci sa yaram nga njëkk koo dindi ba mu set nga xam ne booy tàmbalee sangu day fekk sa yaram amatutoon benn sobe ba mu ca teg nag mooy wax bismillaahi booy tàmbalee sangu farata nga wax bismillaahi ba ca tegu mooy sa bopp nga raxas ko ci ñetti tàng nga xam sa bopp bu defee ab nel mbaa kawar ga bariwut nga xam ne boo raxasee benn mu doyit te tee ñu sopp rek nga raxas ko ci ñetti tàng da sa yaari loxo ba mu fees nga def ci bomb ko del ko defaat del ko defaat ba mu yetti yoon waaye nag bu sa kawar baree mbaamu ràbbaloo ba nga xam ne yetti yoon yi taxul mu daj àgg ci deru yaram itam faw rek nga jàll raxas raxas ba jàpp ne àgg na ca deru yaram wa sopp nañu booy sangu farata nga boolewaale ci njàppum benn benn nga xam ne gannaaw boo raxasee loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jara yi fi ñu takk montar da ngay daal di tàmbalee jumbax ba ba ci bëtiwoom ba te booy tàmbali diggante boobu nga daal di yéene joox faratay cangaay li su ko defee nga teg ci nag njàppum benn benn loolu lañ ci sopp bul fàtte ni waxoon nañ ne boo amee ndox mel ne lu ñu war a jaamoo yàlla nga teewul yéene ci joox faratay cangaay li daal di ragg-ragg rek ba fépp daj dal nay baax sa jaan wàcc na bokk na ci ngëneeli cangaay na bokki woon ci ngëneeli njàpp ndox mi nga bañ koo yàq di def rek loo xam ne yem na te bañ koo ëppal bokk na ci ngëneel yi cër bu ne nga tàmbalee ko ca kaw di ko ragg muy wàcc jëm suuf ki bu dee wetu ndeyjoor nga tàmbalee ca mbagg ma mu wàcc jëm suuf wetu càmmoñ noonu bu dee tànk yi nga tàmbalee bëti woom ba ragg mu wàcc lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ it ni ki yaari loxo yi ak ñaari nopp yi ak yaari wet yi ak ñaari tànk yi yépp rek sopp nañ nga njëkkee ndeyjoor mujje càmmoñ dañoo sopp rek ni waxoon léegi boo raxasee loxo yi ñetti yoon ci bi ngay tàmbali nga njëkk jukki di tàmbalee jumbax jëmbati woom te teewlu foofu yéene ji bu ko defee nag bu dee góor xam nga laal ab sawukaayam daa bokk ci yi toj njàpp kon gannaaw bu jukkee li tàmbalee jumbax ba ci bëti woom ba njàpp njàppum benn benn na mooy too laal sawukaay ba ba ci sax bu nekkee ci biir njàppum benn benn mi na mooy too laal sawukaay ba ndax bu ko laalee rek njàpp ma yàqu su laalee sawukaay bi nag te fekk mu jàpp ba noppi kon na baamuwaat njàpp ma ba tey sax bu nekkee ci biir njàpp mi far laal sawukaay ba mbaa mu def leneen luy toj njàpp itam na baamuwaat njàpp ma ci kaw nag mu am yéene yi bu sangoo ba noppi daal di julli mbaa leneen loo xam ne dañ caa bëgg am jàpp te bu fekkee ne bu sangoo ba noppi day tëdd rek amul lu muy def luy laaj am jàpp kon du aajo muy baamu njàpp ma mën naa bàyyi rek saa yu bëggee jàpp nag door a jàpp soo bëggee nag ca ngaayul farata loo xam ne dëppoo ca waaye boo noppee daal di mën a julli mbaa leneen loo soog ci xeeti jaamu yàlla yi mooy rek da ngay jukki di tàmbalee jumbax ba ci bëti woom ci booy tàmbali te yéenee joox faratay cangaay la bul fàttee teewul yéene ji booba nga teg ca tàmbalee ca bopp ba raxas ba ci jumbax bi door a àggale nag la tàmbalee bëti woom ya ba ca ketti baaraam ya boo sangoo noonu te defaatoo leneen luy toj njàpp kon mën ngaa daal di julli ca cangaay loolee ak leneen loo ci bëgg a def ci xeeti jaamu yàlla yi boo doon sangu nag tàmbalee ci sa bopp raxas mi wàcc rek moom bu dee góor ba agsee ci raxas sawukaay ba ba muy raxas ab sawukaayam fekk na mu weesu yenn cëri njàpp yi te loolu war naa yàq njàpp ma ndax ci ngaay amul lu koy toj waaye njàpp ci boppam moom daa am lu koy toj bu dee góor nag laal ab sawukaayam daa bokk ci yee toj njàppam yi waral nag sangu farata la wax ne yeent la bi mu njëkk a tudd mooy ci yéen ju amee woon deret muy reegal ñu koy wax baax wala mbërëg saa yu jeexee sangu farata war ko ba ca topp mooy jigéen ju amee woon dereti wasin mooy deret joo xam ne am dooma ko waral bu deret ji jeexee ba tey mu war a sangu farata bi ko ñetteel mooy génnuk man yi goo xam ne ànd naag bànneex tey bànneex ba ko daa génne ci aada ndax man yu mën naa génn ci aw metit ni ki jiit fett ko rek man yu génn mën naa génn itam ci bànneex te bokkut ak bànneex ba ko daa génne mel ne yaramam dafa ràmm bokk rek ràmm ga am ca bànneex man yu génn wala li ñuy wax jurgóotu wokk paxum noppam rek am ca bànneex man yu génn yooyu yépp du bànneex ba ko daan génne lu mel noonu dana toj njàpp ñu war koo raxasit boole ci ndax sobe la waaye du waral sangu farata lay waral koy mu sangu farata ndegam man yu daa génn ci moom te diful ak jote maanaam jote góor a jigéen amu ca kon man yu bay tax sangu farata war ko mooy rek mu génn ci kaw laalante ci yaram wala xool xool bu yàgg wala xalaat xalaat bu yàgg yu mel noonu bu ci génnee moom ñu jàpp ne bànneex ba ko daa génne ci aada génne na ko sangu farata door caa war loolu nag ci kaw nelawut de bu fekkee day nelaw moom saa yu mën yu génne ci moom rek sangu farata war ko duñ ci seet am na ca bànneex mbaa amu ca bànneex mbaa dara ndax kuy nelaw moom du mën a takk ay mbiram kon takkal na rek saa yu mën yu génnee ci nelaw rek moom sangu farata dal cay war bi ci topp nag te moo ci mujj mooy mu kàllaf mi bopp sawukaayam dem ci awray keneen mbaa leneen maanaam góor gi nekk mu kàllaf bopp sawukaayam dong dañoo jëlale léppi sawukaay ba bu duggee ci awray keneen niki góor mbaa jigéen ndax duñ ci teqale mu dugg ca sawukaay ba ak mu dugg ca buntu suuf ba mbaa sax mu dugal bopp sawukaayam ci loo xam ne du doomi aadama niki bahima dong la xar mbaa bëy yépp du tee rek sangu farata war ca duñu seet ba xam ndax fekk na sawukaay ba jóg wala jógut duñu seet ba xam ndax sawukaay ba génne ne man yu wala génnewul man yu ñu seet ba xam loolee daa fekk muy dund wala daa fekk loola dee lu mu ci mën doon rek sangu farata day daal di war mu kàllaf mu góor moomu def loolu ka mu kàllaf ma dugal boobu sawukaayam ca moom it su fekkee ne kàllafe na sangu farata dal di koy war yaar yi njëkk wax mooy amee dereti mbërëg ak amee dereti wasin saa yu jigéen amee kenn ci yaari deret yooyu jëkkëram daa war a ormaal la tàmbalee jumbaxub jigéen ja ba ca batiwam ba ndaxam sax jimi jote ga ci boppam la ñuy aaye waaye dañuy bañ suñ ko yaatalee ci mën a bànneexu ci diggante jumbaxa batiwam loolu yóbbu ko ci def lu wërta def mooy joteeg moom ci sawukaay kon nag saa yu jigéen ji gisee deret ci mbërëg mbaa ji wasin li feeg muy jeex ba mu sangu su jëkkëram bëggee tëdd ak moom da koy wax mu takk takk bu dëgër di tàmbalee jumbax ba ci bëti woom la des nag ci yaram wa ku ci ne mën na caa bànneexu ca moroom ma yaar yu mujj yi mooy yaari xeeti janaaba yi man yu génn ci moom mu waral ci moom sangu ak dugal bopp sawukaayam mbaa léppi sawukaay ba ci awray keneen yooyu yaar lay wax ne ku ko def amee janaaba dañ lay aaye tari alquran sax doo ko sañ saw làmmiñ ndax jëmmi laal kaawil bi moom bu ñàkkoon jàpp kese itam ñu aaye ko ko waaye nag bu amee janaaba dañ cey dolli aaye ko tari alquran ci aw làmmiñam ba keroog muy sangu cangaayul farata la ku xës amee cangaayul farata moo xam la ko waral mooy jeexuk deretu mbërëg mbaa jeexuk deretu wasin mbaa kenn ci yaari xeeti janaaba yee bu ko ci mën di waral rek na xam ne aaye nañ ko dugg jàkka bu dee ci yoonu maay sax moom du sañ rek dugg ci bunt bi jàll aw ca bële loolu sax du ko sañ ba keroog muy sangu ca ngaayu farata la daa wax ne boo doon sangu juum ca moom ba ngay jàpp juum ca ñoo yemoo rek boo doon sangu fàtte ca ab cër boo xam ne laaloo ko mbaa nga fàtte ca ab digg boo xam dafa tóowut moo nga doon jàpp na nga ko weesoo woon rek am ca loo xam ne da nga koo fàtte muy ab cër mbaa ab digg boo laalut ñoo yemoo ñoo yemoo ci saa yoo ko fàttalikoo daal di war a gaaw defi ko bu fekkee demoo fa saasay saasa lépp yàqu nga war koo defaat ba tey ñoo yemoo ci su fekkee julli woon nga julli ga yàqu na faaw da ngay julliwaat fi mu wutee nag mooy bu fekkee ne ci njàppale woon na ngaa waxoon ne su fekkee boobaag léegi yeggut mooy teel nga koo fàttaliku boobaag léegi yeggut kon boo defee la nga fàtte woon dañuy sopp nga baamu la ci sësoon mel ni ku jàppan ba toll foofa bu dee fii ci cangaay nag moom loolu amu ci moom jëmbi la nga fàtte woon rek bu dee cër ak bu dee digg moom rek ngay def moo xam boobaa léegi yàgg na moo xam boobaa léegi yàggut du aajoo nga ci sësale la ci sësoon mel ne ku sangoon ba toll foofa bu dee fii moom du ko jar